bonjour, merci d'être avec nous. Bon réveil, lundi novembre Dans un mois, c'est Noël. Petit papa Noël. <laughs> dans un mois c'est novembre décembre léegi mu on a prévu plein de choses pour vous mais en attendant ñu nuyu leen ci ànd bi ak télévision Futur Média ñu heures comme tous les matins alors juste ay quelques minutes de retard suñu njëkkaay la nag ah na ngeen ko xamee euh, mais mooy doog euh, rédaction bu télé bi njëkk bi njëkk mu nekkoon ci français huit ngeen di am ñaareel bi eh, ci wolof lay doon daan ci ànd ak eh, maam Fati ma nga taxaw def simis Euh, neex a fekk Touba euh, Mam Fati euh, ñu ngi lay nuyu bu ñu demee ba juróom-ñetti waxtu jot ndax mën nga ñoo jox say xët ak loo fas yéene yaatal ci waxtu woowu. Pape Cheikh ginnaaw bi ma la fayee nuyu mbokk téléspectateurs yi xibaar yi li ci gën a fës juróom-ñetti waxtu jotee bokk na ca ñi génne woon fële ca Fastef amaloon ab xiifal xiifal ba dakkal nañ ko niki démb gannaaw ba ñu gisee ak député ya ak ndaw yi gouvernement ba li ñu xam sax ne ñu alal ba ñu bi ñu dénk njàng ak njàngale ñeneen ñu dakkal seen grève di gros porteurs yi ñoom it Pape Cheikh di yëngu ci dem beek dikk bi nee nañu euh, juboo am na ci digg seen diggante ak nguurug Sénégal Abdou Diouf nekkoon njiitu réew bu Sénégal jamono jii mu jiite OIF démb ci guddi la yegg si fii ci Ndakaaru loolu yëpp Pape Cheikh ay ponk la bu juróom-ñetti waxtu ah, jotee ñu boole ci ay reportage naa buntu ay wax ko lu baax ñëw na ni ki démb càkk bi ma ca war ponk <laughs> yaa ngoog bu ñu ci tegee reportage rédaction yi juróom-ñetti waxtu looloo nekk suñu menu incha allah. d' accord et puis li nga xëyee boo ko ci sa noonu jëm ci dakkalu euh, grève euh, ñaar ñooñu ndongo ya génne ca Fastef ak euh, transporteurs yi ci loolu laa bëgg indi ay laaj ak ki nga xam ne ni moo di Chérif Dia Chérif nee naa ko moo fi ne ah est ce que xam nga ni Chérif a fi ne Fatick. moo fi ne kay Chérif a fi ne ah. kan Chérif mel. Chérif mi Dia. Chérif <laughs> Dia ah. waaw moom ma. da nga koo weddi. non weddi ma ko. <laughs> li muy ji Pierre Da Silva moom a ca jaaxal. kii sañ a ko wedd ndax ba mu jógee Bawol ndeyam man la ko dénkoon. waaw day jëlee ab teg ci waaw waaw waaw bees la. <laughs> non kaw kaw kaw bu mag laa mais Chérif moom Chérif moom euh, jolof jolof la. <laughs> Chérif bàyyi tooñaa ah, mam Fatou du sama morom ah. <laughs> alors Chérif yii da la may def Pape Cheikh. bàyyi ko rek bàyyi ko man dinaa dinaa ko dinaa régler problème am mais damay bàyyi ba après yeewu leen parce que actuellement on a besoin de xam nga ñun Sénégal euh, ñaare comme je dis souvent dañuy dégg rek teel ni damm na donc ñu mel ni Chérif dañ ciy baax euh, pour duñu expliquer yi nga xam ne nii dañu koy dégg ci rajo yi ci télé yi. ci seen journaux yi pour ñu mën ko comprendre alors fan yëpp ñu ngi ñuy wax grève u euh, ndongo yi jàngee FASTEF euh, ah. ñoom dégg naa dakkal nañu seen grève mhm. waaw dakkal noonu ko dem ginnaaw comme ni ko Fatou waxee sànq bi amee ay député yu fa dem mhm. ak euh, tamit délégation ministre éducation mhm. di fàttali ni ñooñu privé bi la woon ñoom fa yoon bokku noonu ci nga xamante ne dañu ñëw concours direct hmm. xam nga école normale léegi sax tuddatul école normale FASTEF la tudd faculté des sciences de l'éducation ak technique ñoom Euh, bu bu defee concours peut être dañ daa jël ñi nga xamante ni dañuy fay. Mhm. mais ñu aussi il faut mun ñu leeral ni normalement gouvernement bi amul obligation daal di leen di affecté dugal leen ci fonction publique. Ah, ñun daa yóbbu mooy ñi fa duggee ak concours. Mhm. direct mhm. ñu bu ñu defee seen formation ñii un an la ñii deux ans la suñ paree dañ leen di yóbbu maintenant bu nemee ba am des ay place ci école yi. ñooñu dem ci daa jël ñooñu nag leen yóbbu. Mhm. mais année dernière nag ministre bi mu ñëwee dafa jàpp ni. Mhm. ñu ci bëri peut-être affecté nañ ñun war a affecté. Mhm. ñooñu affecté wu nañ kon li mu mën mooy jàppale leen yóbbu leen ci privé yi. arrangé leen ñu waaw mais daaw la woon du leen sax mais ñoom daaw la woon donc un an ngi nii bin génnee ba léegi exercé woon mm-hmm. mm-hmm. looloo tax après nag ñoom ñu de la faim def nañ ko depuis plus d'une semaine mais pas d'obligation waaw non non loolu waaw parce que quand même comme ñu fa duggee ak concours waaw euh, bi seen argument mooy bu fekkee noonu la kon képp ku mën nañoo jël ku jógee ci privé wala ku fay xaalis force dañ mooy dugal te loolu précédent bu xaw a doy waar la mm-hmm. moo tax nag ñu ne léegi pour dakkal loolu mhm. il faut ñu arrêter affaire bi bi ñu ko nag moom moo tax ñoom ñu def pression mun grève la faim loolu sax naqari na benn député bu ñëwoon dem ku mel ak kii mhm. Hélène Tine mhm. jàpp ni chantage la ndaxte grève de la fin moom méthode la boo xamante ne maanaam genre chantage la du méthode bu baax ndax di xiifal ay jàngalekat lan war na jox joxe ay exemple ak yooyu mais xëy na mercredi bunta seeg ministre de l'éducation dinan dinañ trouver solution te tamit yeneen promotion yi ñëw moo tax sa école normale ren concours amagu fa ba léegi. xëy na yeneen promotion yi ba ñëw dugg si dina leen wax lu leer ne leen. yéen ñi jaan ci privé bi gouvernement bi amul obligation. pour wutal leen liggéey pour wutal leen liggéey. Ah, je pense que c'est très clair loolu lu jar a euh, fàttali la donc ñoom ñu doon grève ah, mm. euh, ci la ñuy ak. ak ministre ministre de l'éducation Serigne Mbaye Thiam. Mm. peut-être buñ ci génnee dinañ trouver ñu def mise au point yi. ñeneen ñu doon grève fan yëpp di euh, camionneurs yi ñiy dawal oto yooyu le nga xam ni dañoo dakkaloon euh, seen i activité ci bis yi la ñu génn. waaw c'est vrai ñooñu ñu ngi bokk ci syndicat bi ñuy wax euh, central bi ñuy wax CNTS FC Gora Xuma moom moo jiite. transporteurs yooyu ñoom démb tamit ba guddi ay vingt une heures vingt deux heures ñu ngi woon ci ministère des transports ngir waxtaan ak moom di élément kan bi buñ fa jógee tamit trouvé nañ ay solution même si am na ñaari as yoo xam ne ba léegi d'accord luñ ci mooy wàññi carburant bi ak tamit charge à l'essieu bi maanaam peese bi nga xam ne moom leen peese camion parce que jàpp nañ ni Sénégal bu fekkente ci wàllu UEMOA la Sénégal rek moom moo a yem ci euh, onze tonnes cinquante. ah quatorze dafa bëri. waaw ñoom koy def mhm. ba tax na gouvernement bi nee na comme UEMOA la décision boobu Sénégal mënu ko jël faaw ñu bind waa UEMOA mhm. fii ak année bi di jeex 31 décembre pour ñu xool lan la leen UEMOA di tontu mhm. ak wàññi carburant bi aussi ñoom ñi ngi def pression tey sax dañ woon bu benn oto daw duñ sax si camion yooyu mais yeneen transport yëpp ndax jàpp na ni bariwul pétrole bi wàññeeku faaw ñu wàññi également carburant bi loolu également décision boo xamante ni ministère de transport mënu ko jël ndax mi ngi xam gouvernement la mi ngi sukkandiku ci ministère bi ñuy wax ministère de l' énergie. Mm-hmm. donc il faut ñoom ñëpp ñu daje xool naka la ñu def bu fekkee mën naa wàññeeku carburant bi ñu wàññi ko. lan moo tax ñoom ñu dàkkal seen grève waaw li li tax mooy parce que quatorze lu toll ci euh, ay points yi dafa bëri ay ay na plus d'une dizaine de points mm-hmm. mais gouvernement bi d'accord na ci lu bëri parce que bu fekkente ni wàllu kii la ne euh, euh, garage yi mm-hmm. nee nañ léegi dinañ leen trouver benn solution pour ab garage boo xamante ni camions yi dinañ fa mën a taxaw mm-hmm. am na également beneen boo xamante ni mooy tali bi léegi am na ay contournement yu ñu def jaaree ay Diourbel Fatick au lieu ñuy jaar diggante Kaolack Fatick ndax tali boobu baaxul également loolu la mën boo négocier doone lépp d' ci lépp gouvernement bi bàyyi na benn wàll nga yéen na ci yenn yi mais ñaar yooyu daal moom ci lañ wuute mais am na yeneen points yi moom d' accord nañ d' mu ngoog ñoom nga xam ne ñoo bokk ci syndicat wu yooyu le euh, bi ci euh, topp itam boobu ñu koy euh, laam-laamee jëm ci déclaration yi président Wade defoon keroog bu muy meeting alors am ñu jóg def li ñu tuddee levée de bouclier waaw song nag ñi ngi nekk ci parti bi nga xamante ni mooy AFP ak tamit. waaw euh, euh, li tax li ñu tax contre ci li ñu contre ko mooy dañu nekk ci pays démocratique boo xamante ni président bi fi nekk doon ko fal pour euh, une bien déterminée muy normalement juróom-ñaari at lañ fal Macky Sall. Mm. moom moo jël décision wàññi ci ñaar muy. juróomi at juróomi at donc 2017 normalement ci lañ war a dem élection. Mm-hmm. un ancien président daal di organiser Abdoulaye Wade meeting moom daal ne il faut ñu daal di anticiper élection. mooy organiser ko ci 2015 bon ñëw na ak ci datam xam naa ku jàkkaarloo nag moom danañ ko laaj fan la jëlee dat parce que jàpp na waaw <laughs> du ko moom ni nga ko tàmmee. bàyyi leen sama nag waa AFP ak maanaam AFP nga xam ne dañuy jàppale APR nekk ci mouvance présidentielle bi ñoom ñëpp génn ne Ablaye Wade sax di ko wax cas clinique la parce que dañu jàpp ni. xel mi dafa am nu demee ah euh, Moustapha Cissé Lo moom ne foog ñu déglu Abdoulaye Wade mm-hmm. bu fekkee bu jaree li mu wax bu dee dëggal na ko ñu daal di koy sax tëj bu ko jaree ndaxte tamit loolu mooy politique ak démocratie comme ni ñu ko waxee woon colloque bi ñu fi mujj a jógee mm-hmm. débat la comme noonu mais peut-être li ci garaaw mooy bu fekkente ni dañ dem bay menacer institution yi di wax ay kàddu yoo xamante ne xëy na du ko dooleel loolu baaxul te bi moom mooy mosuñ koo gis kon li ñu gis muy ancien président bu nekk opposant mm-hmm. c'est ça tamit colloque tam boo xoolee réussir nañ vraiment principal mobilisation bi mbooloo mi bari woon na trop. mais am na sax ay information yu ne am na ci ay cadre PDS yoo xamante ni peut am na yenn aspect ci discours Ablaye Wade bi d'accord ci parce que jàpp nañ ni dafa xaw a doy waar te tamit comme réewum démocratie la nekk nan xaar ba kin fal ba mandat jeex bu ko defee nit ñi doo ko dem mais ay commission transition bon institution yaa ngi dox normalement mm-hmm. assemblée nationale justice baa ngi dox dëkk bu ne ci guerre. waaw <laughs> nañ ci yàlla musal donc loolu la quoi moo tax ah. vraiment Sénégal loolu lañ koy jàmm lañ fi xam uh-huh. bon Abdoulaye Wade nag du lii du lu bees quoi peut-être uh-huh. nit ñi dem ci kii nii mais du c'est pas colloque la ko njëkk wax parce que boo xoolee avant muy ñëw retourné fii uh-huh. waxoon na ko ba wax ay armée beeg yooyu donc li fi bees peut-être moom mooy date yi mu jàpp tey mu ñëwaat ak i datam ak également li mu wax ne moom commission bi transition beeg yooyu mais à dala bay suul ci discours bi tàmm na ko wax même ba mu fi nekkee di opposé ak Abdou Diouf aussi yàgg na ko wax mais li ci xaw contradictoire un peu mooy moom Ablaye Wade tamit bi mu demee ba mbir jeex nee na yi ñibbi leen ci jàmm. Mhm. bu fi kenn toj bu fi kenn kii xam nga kon moo lay wax ni peut la ay ay déclaration politique la mais waaw bëgg na jàmm quoi parce que mi ngi ne gars yi dem leen ñibbi ku nekk na nga ñibbi sa kër nga toog. bu bokk moom mu ngi bokk PDS. ah euh, Babacar dafa proposé candidature Karim Wade nee euh, Karim Wade la bëgg mu nekk candidat ci présidentielle yu waaw loolu tamit li ci kii li tax mu xaw a suscité débat ni ba presse beeg ñëpp di ci wax mooy. ki ki wax muy Babacar Gaye ndax porte parole parti démocratique sénégalais la. Mhm. ndomba tànk yu bëri également samp na ko ci parti bi ndax euh, nekkoon na fi directeur cabinet Abdoulaye Wade bi mu nekkee présidence. donc jiite fële ci assemblée nationale nekk également président conseil régional bu Fatick. donc moom Babacar Gaye fi mu sukkandiku mooy koroog meeting ba parce que dafa jàpp ni ñi ñëwoon yëpp am na ay mouvement soutien yoo xamante ni Karim Wade lañ doon soutenir. Mhm. mais li ci jaaxal ñu bëri également mooy ñu ci ànd du bëri parce que waa PDS tamit am na ñoo xam ne ñu ngi ñafe ci parti bi métti na trop.

ne day nekk candidat 2017 ci ban bannière la koy nekkee parce que boo xoolee PDS nii mu nii mu doxalee nii xëy na dina am ñu d'accord ci candidature Karim Wade bi mhm. mais ku euh, comme ni ma la waxee Souleymane Ndiaye moom boo mhm. xool nu ni joxalee réew mi ku mel moom jël nay distance am déjà génn na PDS créé parti boppam waaw candidat la parce que tamit c'est ça Abdoulaye Wade bon parti comme ñu wax démocratie ci biir parti bi Abdoulaye Wade moom PDS loo ci mën wax tamit yëfi boppam

leer na wala ñeent sax ah, euh, ndongo ya euh, jógee Fastef ak euh, ñii di dawal camion ñoom dakkal nañu seen grève indil ngeen ci ay leeral et puis dañu tuddee levée de bouclier ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi joxe seen i kaddu jëm ci kaddu yu président Abdoulaye Wade génne woon keroog ca ba muy meeting ba noppi itam ki nga xam ne ni moo di Babacar Gaye di porte parole bu parti démocratique sénégalais ni ki nga xam ne ni moo di Karim Wade mën na doon candidat ci présidentielle yu 2017 yi jërëjëf Chérif jëm ci ay xibaar yoo xam ne ni lëmbee na euh, réew mi 7 euh, heures moo jot ba tegal 33 minutes na ngeen def ñu ngi leen di ñaanal bis bu neex semaine bu neex tey 24 novembre fi leeg weer euh, ci la ñuy jëm Noël am na ay surprise yoo xamante ni groupe Futur Média moo leen ko bëgg a jagleel dinaa ci ñëw fi leeg ci kanam parce qu'on sera en fête à partir d'aujourd'hui ba at mi di jeex ñu jëm ci li leen di xaar ci ñaareelu xaaju yeewu leen bokk na ci tey daañu Ndiaye ak Maymouna alors Maymouna ñu ngi lay euh, nuyu tey nga wax ci euh, lii euh, nit ñi di indi bu ñu dee sos entreprise nga tuddee ko apport des industries wala apport en industrie des associés ah waaw Cheikh ma lay nuyu di nuyu ñi ñuy seetaan tey nag rubrique droit la par contre. ah droit la d'accord d'accord voilà mhm. ñu bëri dañuy yaakaar ni soit da ngay indi bien matériel wala nga indi numéraire muy xaalis. Mhm. mais am na beneen forme d' apport boo xamante ni nit ki mun na ko def. Mhm. muy apport en industrie. Ah. donc su kanamee moom la ñuy wax. man na xam nga su ma déggee xaalis ak ay industrie ak yooyu comme lay xalaat ndax damaa bëgg xaalis dama ci xalaat yoon. non ndeke ndeke parti yoon bi ngay waxtaan waxtaane parti yoon bi la parce que xam nga création entreprise mhm. droit moo koy régir droit mhm. commercial donc euh, apport en industrie boobu noonu mooy euh, comme nga indi sa doole mhm. wala nga indi sa xam-xam wala nga indi sa ay service pour nekk actionnaire si benn entreprise wala pour nekk associé si benn entreprise donc moom la ñuy waxtaanee si kanam jeex na kon bu ta kanamee lay doona ah, pour ñi nga xam ne ñooy créer entreprise euh, ci jàppale seen i a dina yu am solo comme ni mu koy defee altine bu jot Euh, ci euh, yeewu leen bi bijou ak ay coup de cœur am tey euh, day def Amérique Nigeria Sénégal ñetti dëkk yoo xam ni gëju fa moom nag bu seetaanee clip bu waa Nigeria rek ba xel mi xaw a kilbité koy def coup de cœur alors tey fan la ñuy yóbbu ci waa Nigeria on ne sait on attend de toute façon c'est coup de cœur bonjour bisou bonjour Pape Cheikh c'est vrai que Nigériens yi bëgg naa leen trop je sais pas pourquoi en plus Afrique y de talent mais man daal dafa mel ni côté boobu dafa am lu ma bokk ak ñoom il faut que ma lijjanti loolu sama mosoo kon tey nigérian laa la jox nii voilà dëkk donc euh, niveau des États-Unis néo la ñuy euh, andi benn clip bu bees featuring Juicy J euh, euh, She si la tudd bu ñu paree Nigéria nag benn xale bu tuuti la fa découvrir Pape Cheikh mm. Amariki Dance elle est tellement mignonne que fallait que ma andi ko parce que man daf ma doon rappeler un peu Willow Smith bu États-Unis elle danse bien elle chante bien di ngeen ko découvrir tout à l'heure ci de yi et Sénégal actuellement on parle que de Marema elle a sorti un nouveau clip samedi dernier lañ ko teg Weekend Star donc ñi ko raté foofu yëpp Euh, rattrapé leen ko tey dinañ leen ko wan. voilà et puis côté people comme information elle est même tombée malade ndax cat elle devait venir normalement dans Yeewu Leen elle devait être là aussi hier soir ci émission Amina Poté sauf malheureusement quand elle a quitté euh, une émission bu mu doon def fii nii waaye maa maa mën a joxe information. people elle est tombée malade ah. <laughs> bon cat la nous on l'adore parce qu'elle représente bien le Sénégal à travers loolu gagné prix RFI elle fera partie de euh, suñu ay coup de cœur génn na mais elle vient de mettre euh, euh, génn na way bu bees boo xamante ni elle est en train de euh, faire le tour du monde vidéo la bu ñëpp di teg fan yi donc dinañ ko gis bu ca kaname ak Marema on lui souhaite un très bon rétablissement comme tous les matins yéen ñiy wut liggéey da ngeen ñu yónnee seen ay CV ndok ba ngeen amee jóg job parce que ñun dañoo bëgg ngeen di jóg di job alors c'est qui qui parle avec les recruteurs c'est Kia. <laughs> bonjour Kia. Bonjour Pape Cheikh, euh, bonjour ñi euh, ñuy seetaan ñëpp. Donc euh, on revient aujourd'hui avec euh, des CV qu'on a sélectionnés et toujours rester dans la e-réputation, donner quelques exemples et quelques conseils pour avoir plus de chances d'être recruté et faire attention en entreprise. mu nga jóg job bu ca kanamee lay doon parce que bëgg nañu yéen ñëpp ngeen di jóg di euh, jawab alors Alfi euh, ma nga taxaw def na nag robam bu gàtt de c'est dommage que euh, lépp ngeen dul gis ci kaw rek ngeen bi seen waaye man tubaarkàlla yàlla na ma yàlla la fal cat ndax ma lépp laay gis <laughs> mais en réalité ce qui c'est pas ce qui nous intéresse chez elle ce qui nous intéresse mooy envie bi mu ñuy jox pour ñu dem lekk quand même bu ñu des euh, euh, seetaan yeewu leen suba gi tey ci gourmandise alors euh, à partir d'aujourd'hui ba Noël chaque jour mu proposé yu ñoo ko yoo xamee ni ay lekku fête la <laughs> alors cupcake nga euh, ñuy proposer ce matin bu ànd ak chocolat ak lait n'est-ce pas. chocolat au lait. chocolat au lait Pape Cheikh. c'est ça bonjour Pape Cheikh. bonjour ñi ñuy seetaan ñi ci plateau bi. Pape Cheikh comme ni ñu ko annoncé ci kanam ñu defar ay cupcake au chocolat au lait. ànd ci toujours ak les produits Sofiex dinañ leen wan yan technique ak yan astuce ngeen di utiliser seen kër pour ko defar. voilà donc mu ngoog ak Alphie lay doon ca kanamee pour ñu bëgg a euh, ndikki quand même këpp euh, euh, keek et puis ak moom vers les coups de 9h35 pour li nga xamee ni moo di revue de presse bi bu ñu demee ba 10h la yaa Soukeyna Ndiaye ñëw bu ko defee mu jox ñu journal bi ci français et puis tey dinañu découvrir benn xale boo xamante ni mu ngi dëkk Londres waaye mu ngi fii Sénégal actuellement dafay def musique alors bi muy def mën nañ ko tuddee acoustique wala ñu tuddee ko accro alors pourquoi euh, muy cartonné actuellement Londres dina ñëw ñu waxtaan ci carrière ak li nga xamee ni moo ngi koy def euh, moom nag mu ngi tudd euh, Samba Sène léegi nag réew mi avancé ba séeréer yaa nga yaa nga Angleterre <laughs> ah <laughs> jamono mën a dox waay ma nga toj Angleterre donc moom Samba Sène dina ñëw ci yeewu leen bi et puis on parlera ci li nga xamee ni moom la ñu tuddee Gorée Diaspora Festival ay at a nii ñu koy amal ci Sénégal alors édition bi ñu ngi koy préparer on recevra les organisateurs de cet événement euh, pour waxtaanee euh, programme bi Gorée Diaspora Festival nag ba muy am nag ba tey euh, chaque année ay stars yu mag ñoo jógee bitim réew ñëw di ko célébrer ak waa Sénégal donc dinañu wax ci naka la koy organiser parce que ñu ngi koy amal fii ci réew mi du 25 au 30 novembre 2014 en attendant on va se faire un point sur la météo ku ne xam na ni tàngaay bi wàññeeku na peexu fajar Euh, mu ngi ñuy gunge ci euh, suba gi bu ñu xëyee ngoon gi itam euh, Fatidien yaa ñu ko waxoon novembre weer la boo xam ne dafa nekk ci diggante tàngoor bi ak seddaay bi te ñu ngi bëgg dugg nag ci seddaay parce que température yi wàcc nañu bu baax su ma juumul. wàcc nañu bu baax a baax ni nga ko waxee Pape Cheikh on note un très grand changement la fraîcheur s'annonce et le température le prouvent retenez pour la matinée Dakar enregistre 23 degrés 20 degrés à Saint-Louis Podor 21 degrés. Matam 23 Linguère et Kaolack 21 degrés euh, Tambacounda 23 Ziguinchor 22 euh, Kolda 21 degrés et Kédougou 22 dans l'après-midi Dakar 29 degrés Saint-Louis 30 Podor 36 Matam Linguère 37 Euh, Tambacounda également 37 degrés, Kaolack 36, Ziguinchor même température 36 degrés, Kédougou également 36 degrés et Kolda à 35 degrés. Pour les marées, nous en aurons euh, nous en aurons 4, deux marées hautes et deux marées basses. à 9h50 minutes et la seconde 22h10 pour les marées basses. La première a eu lieu à 3h45 et la seconde est euh, des poissons sera bonne. Amis pêcheurs, gilets de sauvetage de de la journée pour en mer, 2h23 à 4h23 et puis 14h51 à 16h51. C'était tout, pas cher pour la météo. Voilà, comme bu baax ah, ah, seddaay bi dugg na. voilà bi dugg quand yéen leen yére yu yàgg. ñoom piloweer ñoom jeget ñoom mbàjj fóot leen balaa xetu yàgg di leen sonal. c'est fini les 40 degrés à l'ombre. Ah, ah moom seddaay bi lañ jubal. voilà mm. donc sant yàlla. jërëjëf euh, euh, Mame yi euh, pare gu ñëw ki yow ndax di ñu jàppale léegi nii ci yéenekaay yi xam nga kaay yi nag tey ku ci nekk ak li nga xëyee Babacar la ñuy xaar bu pare parce que moom nag ci autorisation am la ñuy demee ak titre yi Pape Samba Thiam ma nga toog tonton Mac. le grand réalisateur de tous les temps moom tamit ma nga toog toog qui est le meilleur toi yow mun nañoo dàq Aziz Soumaré ah dàq euh, tonton am ñoom ñi fi nekk ñëpp ndax dëgg-dëgg euh, il a des doigts d'or c'est le technicien son de Yeewu Leen et puis euh, ñoom Tienti tubaarkàlla ñoom Gomis ah ñoom euh, ñoom Mario équipe euh, bu nekk ci ginnaaw donc yeewu leen ci biir yeewu leen parce que tous les matins yéen ñun ngeen di gis waaye am na ñoo xam ne ñoo nekk ci ginnaaw ko ah y aussi les les les frères Dalton ça c'est les caméramans <laughs> ah ya a a Khadim plus connu sous le nom de Jo il derrière Jo Dalton Euh, il y a aussi il y a OGV plus connu sous le nom de notre frère Dalton que j'ai oublié le nom mais il est derrière hein euh, c'est le papa des princesses voilà il y a OGV derrière moom il s'occupe de moi et puis il y a Boy Petit ah Petit Ndoy moom il est il est il est aussi derrière moom mooy Petit Pata non il n'est pas Pata c'est un petit bandit et puis euh, voilà je salue même les gardiens vigiles yi nekk ci biti. Euh, <laughs> donc on retrouve euh, tout de suite euh, la une des euh, journaux bu ko defee Mam Fati euh, jàppale ñu ci tuuti bu ko defee yéen ñii seetaan balaa ngeen di génn seen i kër ngeen mën a xam li yéen a kaay yi xëyee tey entre autres l'observateur ak yeneen yi l'observateur itam ñu fekk léegi euh, Babacar Ndaw Faye fi nga xamee ni moo di rédaction centrale bu l'observateur bu ko defee moom itam mu jéem ñoo fitil lan mooy mu niw l'observateur te ñu faa dem léegi Mam Fati. nañ dem ah, ñëwaat voilà donc direction rédaction centrale bu l'Observateur pour ce qui fait le menu de ce lundi 24 novembre 2014 de Noël bonjour Babacar Ndaw Faye Bonjour Pape Pierre, bonjour à toute l'équipe de Yeewu Leen. À sa une du jour, l'Observateur est revenu sur le lendemain du meeting du PDS et compagnie. Et c'est pour dire que le meeting du PDS atterrit au tribunal. Alioune traîne Maître à la barre pour diffamation. Alioune et qui est le frère du président de la République, traduit l'ancien président Maître Abdoulaye Wade devant le tribunal correctionnel pour diffamation. Son avocat confirme qu'une citation directe les déclarations faites par le pape du SOPI sur les parts réservées à lui dans la société en charge d'exploiter le pétrole au Sénégal.

par le président Macky Sall. Babacar Gaye a dit tout haut ce que pense, ce que beaucoup pensent tout bas. Sa sortie est ainsi diversement appréciée au PDS où certains font dans le clair-obscur alors que d'autres s'assument et appuient la position du porte-parole du parti. Également la une de l'Observateur Pape Cheikh, une un échange de coups de feu, ça se passe à Touba. Le président du groupement des chauffeurs de Touba, Idika, et le nommé Saliou Mbacké, propriétaire de bus, ont chacun dégainé et tiré en l'air après un échange de propos aigre-doux. Le commandant de la brigade de gendarmerie ne s'est pas fait prier pour les coffrer avant de les relâcher. Ils seront déférés au parquet de Diourbel ce lundi. Et enfin, Papier à la une de l'Observateur, Charles Faye, directeur de GFM Entertainment. Nous ne comptons pas nous limiter au combat Balaguer 2. Emerson s'est-il confié et il faut noter qu'à la surprise générale, les Sénégalais ont découvert GFM Entertainment à la signature du combat de lutte Balaguer 2 Emerson. Comment l'idée est-elle née? Quels sont les objectifs? Le saut vers la lutte n'est-il pas risqué? Charles Faye, directeur de GFM Entertainment, s'est confié à l'Observateur et dit tout. de la naissance de GFM Entertainment à l'objectif de sa structure tournée vers une industrialisation du spectacle. Voilà, Pape Pierre, c'était tout pour la une de l'Observateur du jour. Je vous dis bonne journée à, euh, à, toutes, à vous et à toute l'équipe de Yeewu Leen. Merci Abdoulaye. Je pensais que c'était Babacar Ndao Faye qu'on a l'habitude de retrouver en semaine mais plutôt Abdoulaye Diédhiou que nous remercions euh, mu jox ñu li nga xam ne moo di menu bu l'Observateur bonne lecture euh, d'ailleurs je rappelle aussi que euh, groupe bi yëpp muy GFM ñu ngi leen di waajalal ay mbir yu am solo pour delle leen njukkal durant tout le mois de décembre l'Observateur itam bokk ci pour ay lecteurs am dinaa ci ñëw ba ca kaname bëgguma ci sori moo tax nag depuis ce matin maa ngi insister ci fileeg benn Père ci la ñuy euh, fêter Noël parce que tey mooy 24 novembre 2014 Fati euh, bu dee yéenekaay yeeg euh, i xët bu ñu xoolee par exemple yéenekaay bii di le témoin ah témoin mu ngi xëy ak ki nga xamee ni moo di retouru Abdou Diouf la def en image ak nataalu Elisabeth ak ki nga xamee ni moo di président Diouf apparemment mu ngi ànd ak njabootam ñu def ni le retour d'Abdou Diouf en image ci le témoin et puis wax nañu ci euh, ki nga xamee ni moo di euh, Serigne Saliou ak Idika devant le procureur ce matin alors euh, relaxé après avoir échangé des coups de feu dans la gendarmerie de Touba. waaw mu mel nii le témoin dellu si na ci ñaari xew-xew yoo xam ne moom fekk ne ko wala boog am na ci firnde président Diouf. di ñëw ñëw na démb sax fii ci ndakaaru démb si guddi mm. ñu ne sax bi mu see gouvernement bi yóbbu na ay ndawam ndaw yi nag bëriwuñu waaye gis nañ ci lu le témoin ñi nga xam ne ñoom ñooy njabootu président Diouf ak kii di soxnaam Elisabeth leneen euh, lu xew ca Touba Mbacke la Pape Cheikh mu mel ni démb euh, gars yi ne nañ ñoo ko fekkee woon mel ne ni Far West mm-hmm. diggante doomu Alaaji Baara mm-hmm. ak ki nga xamante ne si moom mooy Idika bokk ci dawalkat yi yore fa kuréel mm-hmm. euh, soxante ku daal sax ñu daal di boobu bàyyi leen mais sax jàpp nañu ne tey jii euh, dañoo war a jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy attekat ba loolu euh, c'est une affaire à suivre voilà am na sax ñu ko euh, tuddee syndrome Moustapha Cissé Lo Far West boobu nga wax mm. moom la yéenekaay bi di enquête tuddee la fa xew démb échange de coup de feu à la gendarmerie yéenekaay bi di enquête def ci xëtam bu njëkk ni Far West la à Touba luy Far West ti sax xanaa moo di film yooyu ñuy tiire bal pa pa pa ko boy fa am waaw gis waa gis doy na waar. c'est grave ça ah yéeme na. d'accord Euh, comme ni ñu ko waxee rek euh, doomu Alaaji Baara mhm. euh, nekkoon xalif général des Mourides ak ah, keneen ko waaw <laughs> ci yéenekaay bi di enquête uh-huh. donc ñu gis mooy ku ne dangaa sox bal te tiire ko ci kaw ñu naan ko tiire en l'air lu ci mën a am mhm. ñoom ñaar jàppoon nañu leen bàyyiwaat leen te it nee ñu sax tey jii incha allah mhm. daañu dem ca kanamu àttekat ba maanaam ñu déglu leen d'accord bu weesoo yéenekaay boobu di enquête ñu xool xutu yéenekaay bi di Walfadjri moom xëyee na ak nataalu président Diouf ma ngi ko teg ca coggol ga parle de Sidi Lamine il a été un excellent conseiller dans nos relations avec les pays arabes et aussi l'Iran mm. mais euh, ba tey ci euh, xëtu Walfadjri ñu bind vrai faux kidnapping de la fille de l'ex-président sénégalais Serigne Moustapha Cissé dessine les contours des faits ce qui s'est réellement passé waaw Pape euh, Cheikh Serigne Moustapha Cissé wax na mm. ci ponk bu am solo mémoire Abdou Diouf yi mm. Walfadjri dafa dellu si moom la wax ci euh, maanaam euh, kidnapping bi moom mhm. euh, sëñ Moustapha Cissé indi na caay leeral nee na wax na la fa xew en tout cas Pape Cheikh Walfadjri mhm. xëy na ci ponk bu am solo président Diouf xam nga mémoire am yi ba ba tey mhm. coow laa ngay wéy waxoon na ci doomam ak it loo xamante ni si amoon na digganteem ak Libye du ci mën a am ku jënd yéenekaay bi di Walfadjri di nga ci am lu la gën a leer barke Dembo Ndiaye ñu ngi wax ci assise ñu yëngu ci wàllu presse ñu tuddee ko assise yéenekaay bi di Soleil mhm. moom xëyee na ak euh, daje boobu euh, daal di bind ni Macky Sall au 43e assise de l'Union de la presse francophone euh, mu ne il y a urgence à voter le code de la presse Madiambal Diagne Madiambal Diagne la ñu def euh, président Abdou Diouf est arrivé aussi hier à Dakar donc loolee euh, la yéen a kaay bii di soleil xëyee tey. waaw le soleil xëyee nag euh, ponk boobu njiitu réew mi yëkkati muy code de la presse moom nag njiitu réew mi Macky Sall dafa jàpp rek ne maanaam press bi journalisme ak lépp lu ci yëngu ñu bëri dañ koo jàppe porox ndoll ne ay taskatu xibaar lañ te lu te du ko. lu ci mën a am moom mi ngi sàkku. Mm-hmm. code de la presse boobu ñu gën ko càmbar. Mm-hmm. ñi ci yëngu nag ñoom jàpp nañ ne lu ci mën a am. ñoom seen kuréel boobu nag euh, Madiambal Diagne la ñu tabb comme ni nga ko waxee moom moo ko hmm. jiite. voilà yéenekaay bi di euh, Sud Quotidien moom xëy na ak li ñuy waxtaanee depuis des années muy coow la am ca Casamance mu def ci xëtam bu njëkk euh, nataalub soldat lam rebelle xamuma en tout cas mu ngi yore gànnaay ah yore na fetal ak mbaxaneem te ñuul na kukk mu ngi ci àll bi apparemment. <laughs> Sud rek moo xam ki ñu ki ñu photo kan la. Mm. ñu bind crise Casamance euh, casamançaise plutôt multitude d'acteurs moom ci mu xëy rek moom mooy euh, fitna ga ca Casamance mm. jeexagul. Mm-hmm. li ñu gis moom mooy MFDC di mm-hmm. kuréel googu nga xam ne moom moo leen moo moo leen tënk. Mm-hmm. am na euh, ci biir mbiccoog mbaalo leneen lu ñu gis it moom mooy kuréel ga ñi dañoo seddoo ñi dem fii ñi dem fee foofee ñi nga xam ne dañ ci doon dox tànki jàmm it léeg-léeg euh, dañuy xaw yeex ci mbir mi mu mel ne daal foofee euh, ca Casamance ak it fitna ga dara demul dara dikkul voilà bu weesoo yéen kaay boobu du Sud Quotidien euh, direct info euh, dañuy dem ci moom ak xëtam euh, ñu ngi wane nataalu président Abdoulaye Wade ñu def lendemain du huit du meeting du PDS et ses alliés mm-hmm. pourquoi Wade a réussi à faire trembler le régime. waaw direct info dafa samp li mu wax moom mooy lan moo tax ki fi nekkoon njiitu réew bu Sénégal mm. di loxal maanaam yëngal nguuruk Macky Sall li ñu gis moom mooy Pape Cheikh dafa dellu si. Mm. ci meeting bi amoon aljuma ci place. place de l'obélisque Front mhm. patriotique Parti démocratique sénégalais ak seeni ñooñ Ablaye Wade yëkkati fa ay kaddu yoo xam ne daal mhm. ñoom direct info dañu jàpp ne kaddu la yu yëngal nguurug Macky Sall Ablaye Wade na arrêté wala ñu arrêté ko du samay kaddu ay kaddu ak Moustapha Cissé Lo la ci euh, xëtu yéenekaay bii di populaire tey jii mm. Moustapha Cissé Lo responsable de l'APR populaire loolu la xëyee mu ne soit Wade arrête ou on l'arrête il doit être interpellé interrogé il et s'il persiste être être mis en prison. c'est ça waaw Cissé mm. Lo euh, ku nekk xam na ne euh, kilifa la ci APR. mu ñëw ci populaire nee na nag eh. Ablaye Wade eh, dafa war a dakkal arrêté eh. wala sax ñoom ñu dakkal ko ñu arrêté ko lu ci mën a am war nañ koo déglu bu jaree sax ñu teg ko loxo mm-hmm. ñu teg ko loxo loolu mooy gis-gisu Moustapha Cissé Lo mi ngi ci yéenekaay bii di le populaire ci seen xët bu njëkk d'accord et puis wax nañu ci yéenekaay bi di libération def ci xëtam bu njëkk Pedro Diouf et le marché pour le contrôle de la charge à l'essieu mm-hmm. un parfum de scandale waaw mu mel ni nag euh, contrat ba ak société boobu nga xamante ni si ñuy toppatoo wàll wi mhm. ñoom dañoo gis ne scandale maanaam mbuxu ma ca biir ndax ñoom nee ñu euh, contrat bi sax dañu ko euh, signé mhm. ñaari weer ginnaaw ba la ñu doog a taxawal société bi lu ci mën a am mhm. euh, Pape Cheikh euh, pesage à l'essier actualité la mhm. ndax bokk na ci ponk yi waral grève bu mhm. euh, syndicalistes yi yi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci dawal oto yu mag yi ñu naan leen gros porteur dañu dakkal grève bu mel ni ponk boobu Chérif ja dellu si na ci sànq ba tey gindi ko amagu ci lu ci mën a am libération gis na scandale ak société bi nga xam ne mooy toppatoo lu ñu te yow sax di ci dellu si waat bu ñu demee ku euh, jaaxle jël loxoom def ci kanamam ñu bind ci laas bi le pouvoir crache du feu sur Wade. waaw mu mel ni nag euh, fi mu ne nii euh, nguur gi. Mhm. ña ngay ña ngay def seen kéem kattan gi tontu Wade kenn ku ne. Mhm. yaa ngi génne say say say arme mhm. daas ba mu saf nga jàkkaarloo ak moom. parce que tontu la ñu gis ndax ñoom. aljuma bi ñu génn Abdoulaye Wade dafa dal seen kaw. Pape Cheikh fi mu ne nii nag ñoom. ñoo aye maanaam ña ngay yàq mbelangaan ñi ki fi nekkoon jiitu réew bu Sénégal. mu ngoog nekk yéenekaay yi xëyee tey jii ci bis bi ñu jeexal ak stade euh, yéenekaay moom wax na ci euh, waajtaayu Coupe d'Afrique 2015 mu bind euh, six matchs élima éliminatoires le onze type de Giresse. waaw stade dellusiwaat na ci mm. juróom-benn jongante yi nga xam ne suñu gaynde yi lañ ca def tax nañu dem ci CAN bi ñu dëgmal. Mm-hmm. atum 2015 ca Guinée équatoriale. li ñu mm-hmm. gis moom mooy onze yi nga xam ne. Euh, alagires saa yu ne départ ñoom lay dugal yaakaar naa noonu la nag. waaw defe naa noonu la tàggat yaram moom. maak moom <laughs> da ngay de toute façon toute la journée dañ ko gën a càmbar ci suñu ay jotaayu xibaar jërëjëf euh, maam Fati fi juróomi simili euh, ñu àndandoo ak yow 8h dafay jot bu ko defee nga jukkil ñu xibaaru tey l'observateur itam moo ngi fii dem nañu léegi nii ca rédaction centrale ba laataa ñoo àggali dañuy dem woo suñu coach tey mu ngi jógee Olympique Club de suite daf ñuy proposer ay exercice concentrez-vous et faites euh, yi nga xamee ni moo ngi koy def bu ko defee ngeen mën a noddanti seen ay noor-noor euh, samedi dafay neex dimanche dangay ngay noppalu lundi boo yeewoo da ngay xaw a mel ni ku nege nege waaye ndok yeewu leen na nga fekk ay exercice su fitness am c'est parti. Bonjour coach. alors tey qu'est-ce que pour ñu euh, yëngal suñu ay yaram lundi bi gis nga leen ñoom ñëpp dikk daal salaamaaleykum mais ñu ñëw màggatee ndaw nag ku ci nekk nga doomu daal billaay coach sawa sawa billaay samedi bi yow coach ni ma sonnee non mais franchement ah yéen ñëpp vous êtes comme ça mais qu'est-ce qui al si dee na ko coach samedi bi de damaa yóbbu woon sama doom bi fële Magic Land bisu la fol waa Côte si yow maa sama far bee àndoon samedi moo tax ma sonn ay de si la Ndiaye Côte sama doom ji dafa xaw a feebar. kii moom kenn xamul lu muy nuroon <laughs> bon je blague et montrer que am ngeen forme ak n'importe quel jour parce que la réussite n'est qu'au bout de l'effort loo sonn sonn sonn sonn boo xëyee altine waneel sa doole nga muñ quoi def leen comme Mame Faty Dieng moom lu mu sonn sonn sonn sonn elle est toujours elle pète la forme voilà vous aussi il faut péter la forme c'est important n'est-ce pas alors qu'est-ce que tu nous proposes ce matin <laughs> puissance ah oui lundi puissance la en plus boo defee puissance di nga da ngay péter la forme parce que c'est important voilà pour pouvoir la forme important c'est parti <laughs> je suis devant vous allez <laughs> non travail à haute intensité <laughs> donc super intense Müzik DJ Bölüm Müzik

I'll give it up to me. foofu ñu lijjanti fay ou puissance en tout cas mën ngeen fekk coach olympique club euh, parce que ñu ngi proposer exercice yu am solo merci d'être passé ce matin on vous retrouve demain euh, ci euh, yeneen exercice yu ngay proposer huit heures jot na war nañoo mën a jàll nag ci xibaaru suba gi